moom mi nga xam ni jamono ju nekk rek moo ni may nu ànd ak tal ak fekke waaye loolu yépp mu ëmb ko ci ki nga xam ni moom lañu booleel te mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee moom yonent bi yàlla jox ko discours universel boo xam ni kuy defaru rekk ci discours boobu ngay déglu ba jaare ci defaru su ko defee moo tax yonent bi moom mu jàngal mbooloom jullit yi li ñuy soxla waaye en général mu jàngal humanité bi yépp li ñuy soxla ci teggin ba àdduna ju tukki ndax yàlla moo ko gërëm te yàlla ku mu gërëm rekk royukaay nga te ñi mu mës gërëm ñépp yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen président kon moo jiitu ci ngërëm nga waaye su ko defee it nga gis ni yàlla dafay bind jamono ak ay nattu yàlla dafay bind jamono ak ay nattu ndax su jamono amul nattu rek dañuy wax ni kon ëllëg kenn du ko àtte ku yàlla dul nattu kooku ëllëg kenn du ko àtte ndax ci kanamu yàlla dañuy wax ni am na privilège boo xam ni ñi yàlla bëgg ñépp kenn amu ci privilège boobu ndax yonent yi ñoo jiitu ci natt te yàlla daf leen bëgg wëli yàlla itam du ñu jug ci nattu te yàlla daf leen bëgg su ko defee ñu ni jamono yit comme ci siècle bu nekk yàlla dina indi koo xam ni dinañu wax ni mu jaddid la pour mu yeesal diine ji ñu ni kon kooku nattoom it dana ànd ak nattu jamono ñu ni nattoom dana ànd ak jamono ndax Cheikh nee na yonent bi lii wane ni moo ëpp ñëpp nattu mu ni bi mu ñëwee màkka dafa fekk leen ñu nekk ci lëndëm fekk leen ñu nekk ci société bu yàq waaye fekk leen ñu nekk ci lu waay neex def lu waay neex wax diine amul su ko defee nu jël ay xëram def ko ca kaaba ga wax ni ñooy seen yàlla nee na lu tax yonent bi ëpp ñëpp natt mooy yàlla daf ko indi ni ko fekk nga société bi yàqu waaye faw nga defaraat te yooyu xew yépp nag na nga ko dindi ci dëkk boo xam ni itam kenn nangulu la yàlla ni nga rétablir la noo tuddee ordre rétablir lanoo tuddee justice ci dëkk bu la kenn joxul cër waaw kooku Cheikh Tijani nee na nattu gënu ko rëy nee moo tax yonent bi mission metti nee na moo tax mission metti waaye yàlla itam wutal ko ay yoon yu mu jaare ay yoon yu mu jaare ba lenn lu ca nekk rek mu delloo ko fa mu war a nekk nee na li des nag ndax bu ko delloowee fa ñu war a nekk société boobu daañu apprécier nee na loolu yoon yonent bi nekku ci moom li yoonam nekk mooy bu ko delloosee fa nga xam ni foofu la war nekk rek yàlla apprécier te mooy li ko yàlla defal mooy dënnam bi yàlla jël leeru alxuraan def ko ci ba pare indi bépp solution def ko ci téere boobu di alxuraan yàlla indi na bépp solution def ko ci téere boobu di alxuraan ba noppi jël alxuraan def ko ci dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mujj nekk solution ci seen problème yépp ba société boobu di dem ba ba muy jag noonu la àdduna di doxe noonu la àdduna di doxe ci zaman bu ne su ko defee it yàlla ña mu bëgg muccal mu muccal leen yàlla ña mu bëgg muccal mu muccal leen waaye nag bu la muccalee itam du tey nattu mën na ñëw bu nattu ñëwee rek لم وخون يوننتي بي فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سو ديفه كوكو لين دو فا خج لودول وكير لو سي بروم بي وكير لو سي بي موتاخ كريز يي غاي دغ ييب سي جامونو يوننتي با سي كريز يي خيو سي اخر الزمان lenn lu ca nekk boo ko àttee comme nattu rekk dangay dellu sant yàlla dangay dellu sant yàlla ndax axiru zaman noonu rek la mën a mel su ko defee nag yi ci des yépp nga xool ci lii sa farata nga def ko lii sa farata nga def ko li tuddul sa farata nga sore ko ndax loolu mooy li am solo ndax loolu mooy li am solo loolu mooy li am solo te loolu aussi mooy ngànnaayu jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngànnaayu jullit mooy mu xool li farataam mu def ko li dul farataam mu moytu ko loolu lu am solo la waaye itam yonent bi dénkaane wax ni bu la crise yóbbaale mukk ba dugal la ci luñ lay toppee ëllëg waaw yonent bi moo ko wax nee na bu crise doye doy waar walla mu garaaw ba yóbbaale la ca loo xam ni dañ la koy toppee ëllëg loolu itam bàyyi ci xel lu am solo la waaye mu waxit moom yonent bi ni yéen ñiy àtte mu ni na ngeen xam ni ni ngeen di taxawee di àtte nit ñi ëllëg yàlla noonu lay toogee di leen at waaw ngeen bàyyi xelit bis boobu mu ni yéen ñi nga xam ni itam ay defandre seeni client nu tuddee leen ay avocat ñi ngeen di defandre na ngeen xam ni la ngeen di wax ca kanamu juge ba moom ngeen di waxaat ci kanamu yàlla ëllëg waaw mu ni léegi nag ku ci ne yaay xool ndax da ngay jël sa àdduna jëndee ko sa àllaaxira wala àllaaxira moo la ko gën a kooku àtte na ñëpp moom yonent bi parce que tension yooyu mu prédiroon ba noppi joxe ci ay solution te solution yu jóge ci alxuraan mais crise yi ak tension yooyu fu mu toll moom la ñuy dund ci suñu réew moom la ñuy dund ci suñu réew ñi nga xam ni ñi ngi dugg ci crise boo xam ni yóbbaale na leen ba ëllëg lu leen toppee ñoo tooñ seen bopp mooy ñi yàq alalu jàmbur ak jël alalu jàmbur waaw gis nga boutique boo daj dërëm boo ca jël te moomuloo ko boo duggee sa bàmmeel dërëm boobu dinañ la laaj lan moo tax nga jël ko waaw kooku du wàllu crise walla wàllu politique walla wàllu leneen kooku islaam ko njëkk at alalu jàmbur boo moomul dërëm boo ca laal donte boutique ba ñëw na toj nañu boutique baat nit ñaa ngay jël meew yaag nit ñaa ngay jël kafe yaag boo ca laalee benn dërëm boo moomul laal boo duggee sa bàmmeel balaa ngay dem fenn dana la laaj dërëmu jàmbur ba nga jël ci lan nga ko teg waaw moo tax kooku bu la ci crise yóbbaale mukk waaw kooku bu la ci crise yóbbaale mukk ba nga jël alal boo moomul parce que waxuma ku ca jël euh, dix mille francs wala ku ca jël leneen dama ni ku ca jël dërëm ci alalu jàmbur boo moomul boo duggee sa bàmmeel danañ la ko laaj te boobu doo am ku la layal yonent bi sallallahu alayhi nee na alalu jullit dafa sacré waaw nee na alalu jullit dafa sacré nee na alalu jullit kenn du ko laal te amoo ci autorisation waaw bi ci des itam léeg-léeg nga dégg ku wax ni alalu réew yonent bi dafa am la mu waxoon nee na ay jullit suñu dajee fekk dafa toog ak saxaaba yi mu di leen jox ay misaal benn par benn mu di leen wax juróom-ñaar moom yonent bi di leen ko jàngal juróom-ñaar yoo xam ni nee na soo leen gisee yowmal xiyam nee na seen kawaru bopp ba ci seen weewu tànk yépp bàkkaar la mu di leen limal di leen limal ba àgg ci benn côté boo xam ni lu lu jar a bàyyi xel la ci jamono ji ñu ne mu wax leen ni jullit yi daje wut benn alal alal ba nekk ñoom ñëpp seen appartenance ñu moom ko maanaam yow la nga ca am moom la ca sa moroom am yonent bi ni alal boobu jullit bu xoole ba yàq ko bu ngeen di tànn juróom-ñaari ëllëg yi nga xam ni yowmal xiyaam bu ñu taxawee seen kawaru bopp ba seen weewu tànk ay bàkkaar la dinañ ca boole kooku waaw mooy alal ju ñëpp bokk kenn du ko yàq waaw alalu jàmbur it yonent bi ni kenn du ca laal dërëm parce que dërëm boo ca laal ëllëg danañ la ko àtte waaw léegi nag li des ci crise crise nattu la bu nattu ñëwee voie de recours ya ñu war a utiliser muy voie de recours yoo xam ni nit ñi mën nañ ca régler seeni solution waaw voie recours ya ñu war a utiliser kenn ku nekk mën na ca régler problème am ba trouver ca ay solution waaw mooy voie de recours yi nga xam ni indi nañ ko bu dee borom bi mom voie de recours ba mu santane nee moy mooy waxtaan waaw nee na waxtaan ci yar ak ci teggin ba nutek ci kat su lolou mënee nek waaw su lolou mënul nek bu nit ñe de xexit nu tek xex ba ci baña alalu jambur waye baña aussi alal ju ñepp bok waaw mën na nek su yoy yep amé li ci dess walu aduna la kenn du lako top waaye am na loo xam ni moom islaam nanguwu ko te képp ku ànd ci loolu yi doo ko teg ci alxuraan doo ko teg ci diine mooy alalu jàmbur kenn du ca lal dërëm boo moomu loolu yonent bi moo ko tere ci dernier discours am ca Arafat waaw nee na bu benn jullit jël dërëm boo xam ni jullit ni moom moo ko yore di ci daan dooleem walla yore place di jaay wala yore taabalam di jaay kooku lu crise metti metti nañ ko bàyyeek alalam parce que nee na yow ma cay jël dërëm ëllëg doo am lay boo duggee ci sa bàmmeel moo tax loo dégg ñu dajj ko bu dee magasin bi dàjj nañ ko bu dee leneen dàjj nañ ko indi nañu ñam bii bu ca laal benn ñam waaw parce que ñam boo ca laal ëllëg daañ la ko àtte waaw kooku du problème mu wàllu politique wala wàllu gouvernement wala wàllu opposition problème mu diine islam la waaw kooku problème mu diine islam la alalu jàmbur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa sacré bu benn jullit nee jël dërëm boo xam ni ci alalu jàmbur la bokk waaw ak lu crise rëy rëy nag waaw nit mën na marché waaw nit mën na yooxu wax lu ko neex nit mën na bu ko neexee sax jël xeeram sànni waaye nee na xeer ba it bul fexe ba xeer boobu di dal ci bopp jullit bu ci yoonam nekkul kon gis nga islam dafa yar ñëpp li ci des nag mooy injustice am na nangam nangam injustice bu mënta am ëllëg yàlla dina taxaw yowmal xiyam mu dajale ñëpp rétablir justice waaw waaw loolu garantie la loolu garantie la injustice bu nit mënta jooy nangam injustice léeg-léeg nga dégg que réew mi léegi injustice bi nangam ma ni waaye yàlla dana rétablir justice ëllëg yowmal xiyam waaw ëllëg yowmal xiyam yàlla dana jël képp ku doon atteeg ka nga doon atteeg ka ca waxoon dëgg ka la sosal ak ka la indil problème boo warul woon am mu teg leen ci kanamam jël jour boo xam ni cinquante mille ans la yàlla am na temps kenn ku ca nekk dossier ba luñ ca nëbboon lan ca génne mu génne ko ci kanamu ñëpp ñu fekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yëpp buy am yow sàmmal sa ngor ba dërëmu jàmbur bu mu dugg ci sa poos waaw mu ni sàmmal sa ngor ba benn ñam boo moomul buñ ko jëlee ca alalu jàmbur bu mu dugg ci sa gémmiñ waaye mu ni itam sàmmal sa ngor ba bu ca wax loo xamul waaw waaye nee na itam foo fekk ay fexeel ba loo mën ci jàmm fexeel ba ay ba jóge fa te jàmm sax fa loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant jullit yi su ko defee nag bu réew tolloo ci crise jullit bi moom dafa war a toog ba noppi yii yépp mu jàngat ko ba noppi bàyyi ci xel laata muy jóg di wax ca crise ba walla mu di ci bokk parce que nit koo gis ci côté àdduna am na fu mu far su ko neexee waaw la ñuy wax it ci wàllu réew réew ñëpp a ko bokk réew ñëpp a ko bokk su ko defee nag lu ñëpp bokk nag ñëpp a ko war sàmm waaye li wóor mooy lu nit ñi wax ni talatunu sàmm talatunu sàmm yow jullit bi sàmmal sa diggante ak yàlla ndax bu ñu la laxasee ci juróom-ñaari mètre percal denc la kenn du la fa fekk waaw te bu boobaa dërëm boo jëloon dërëm boo jëloon ca ba nga juddoo ba dërëm bay mujj balaa ngay jàll daañ la laaj foo ko jëlee ak foo ko dugal waaw yonent bi ni loolu yépp nag soo ci bëggee mucc nee na alalu jàmbur bu ca jël dërëm boo moomul waaw kon yi xew léegi il faut ñu defaat taxaw seetlu il faut ñu defaat taxaw seetlu ci côté islaam waaw taxaw seetlu ci côté diine waaw ndax tey jii am na ñoo xam ne ña nga ca marché ba yore seen benn boutique di ci daan seen doole di ci dundal seen njaboot ñu ñëw dajji boutique boobu jël seen xaalis jël seen xaalis pour la loolu du du pour xeex walla pour xuloo loolu loolu loolu tooñ la waaw yëfu jàmbur yëfu jàmbur yëfu jullit bi yëfu jullit bi la problème lu mu rëy rëy jullit bi warul jël dërëmu jullit bu mu moom lu mu joxewul xaliss ñu jaay ko ko waru ko jëlee ci boutique jambour boko ko ci boutique jambour bakkar la waaw koku alquran atte na ko borom xam-xam yi atte nañ ko nit nit nit ñi sukkandiku ci diine yépp xam nañ ni non lay dox kon lool naka jullit bi moytu waaw li ci dess nak ay posture de revendication la waaw nit ñe ngay manifester droit de manifester ñepp mën nañ ko waaw nit ñi ànduñu ci li ku mu neex baña and ci décision bu la neex waaye wax ni lii mooy wéy gis nga injustice mënul wéy injustice même su wéyee ci àdduna ba ñu ni kat ña ko sàmboon ñi ngi nii gàñe nañ ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana taxaw rétablir justice waaw waaye nag na jullit bi moom ni muy nekkee ci crise bi mu xool bu baax ba nga xam ni lépp loo xam ni yàlla mën na ko ko topp ëllëg du ci dugg waaw te li yàlla gën a mën a toppee nit mooy jël alal joomam loolu maanaam amul benn livre ci Zabour ci tawraat ci injil ci furxaan amul benn livre sacré bu yàlla ma sa wàcce bu nangu nit mën a dem agressé nit jël alalam amul waaw loolu dañ ko baniir waaw waaye noo gisee nag léegi aaxiru sama mooy ñi war a wax dëgg duñ ko wax waaw dañuy toog rek waaw dañuy toog rek bañ ko wax te loolu lu jar moytu lu war li nu war a moytu lu actuellement jullit yi fii ci réew mi fi ñu toll mooy moyetu leen alalu jàmbur loolu lañ leen war a wax waxu mu ñu wax leen waxi politique wala waxi opposant wala waxi président nañ leen wax moytu leen alalu jullit boo xam ni yoonam nekku ma ngay daan doole moytu leen alal waaw yonent bee taxaw ci dernière xutbaam ca Arafat wax ko fa ni jullit bu nekk na jàpp ni alalu jullit bi lu sàkkare la waaw mu ni jullit bu nekk na jàpp ni bakkanu jullit bi lu sàkkare la bi ko Ababacar interrogé ni ko Euh, ki tuur ki rey nit tay ko waaw ki rey nit tay ko luy àtteem yonent bi ni ko ki rey nit ba noppi fekk moo ko tay ëllëg yowmal xiyaam mu ni yàlla dina ko jël wax ko ni ko li mu def ci deret ci yaramu doomu aadama ba ba mu koy bind naka ka delloo moom moom mi nga xam ni moo tuur deret ba gut bu ne naka ka delloo te booba fu muy jële gutu euh, deret yooyu di ko delloo ba organisme doomu aadama ba cinq litres de sang yi di ma yonent bi ni képp koo xam ni tuur nga deretu jullit tay ko nee na yàlla dana la jël yowmal am taxawal la benn gut bu nekk yàlla ni nga delloo ko ko comme na mu binde woon nit ka waaw mu ni boo mënul loolu nag fu la yàlla yóbbu yaa tooñ sa bopp waaw kon rey nit tay ko lu lu lu grave la waaye gis nga rey nit tay ko lu muy grave grave it jël alal joo moomul noonu la grave motax julit yi nga xamni seen yoon nekkul ci crise bi ñi dijai, seen boutique di jaay ñi ñi ngeek seen table marché di jaay nañ leen leen dimbali bàyyi leen ak seeni boutique ak seeni table marché ñu wut lañu yóbbul seen jabot bu ñu demee mën a ànd ak seen jabot jaamu yàlla képp ku dugg ci seen mbir nag laal fa dërëm fexeel ba sa bàmmeel bu ñu la koy laaj na nga répondre waaw loolu li ci nekk li ci des nag yàlla yoonam nekku ci waaw loolu waa lu réew nii la war a doxe nee na la xam nga yàlla lu mu res mooy képp ku doxalul dëgg boo ñëwee ba ci moom borom bi yowmal xiyaam dana toog nit ñi toog mu àtte la ci dëgg yàlla boo doxalul dëgg loolu yoonam nekku ci daf lay xaar rek mooy asabu mooy le patient moom yàkkamtiwul képp ku doxalul dëgg ëllëg boo ñëwee yomal xiyam yàlla dana leen taxawal nii àtte leen nii waaw yomal xiyam ñëpp nii la ñuy taxawee kii nekkoon na président nangam dend ak koo xam ni ouvrier la woon kii nekkoon na sëriñ nangam delloo koo xam ni euh, daana ko euh, moo doon sax mu jitëri ca daara ji waaw dend ak moom yàlla dendale leen ba ñëpp taxaw ci benn place kenn ku ca ne mu feeñal jëfam ba jëf ba feeñ ba ñëpp teg ci bët waaw kon àdduna jaarukaay la faw nit ñi bàyyi xel seen bopp waaw léegi nag li yont bi waxoon ci axiru zaman moo tax waaw ñaar rekk a am ñuy tenir discours dëgg ñu ngi koy tenir ba léegi ñenn ñu bari nu dëgg ndax dañ naan ba waxee dëgg du arrange yi maanaam euh, li ma gis mooy léegi ñu bari bu ñu jëlee parole au lieu wax li yàlla wax dañuy neexal nit ñi waaw di wax lu neex nit ñi yow nit ñi ñoo ànd ak yow sa bàmmeel bu la suulee dañuy suulaale nit ñi ñu lay défendre looy wax lu neex nit ñi waxal li yàlla wax waaw ku ko dégg baax na ku ko déggul kooku affaire am la moyetu alalu jullit yi ni yàq loolu laa wax waaw dama ni nañu nañu nangu li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca arafa bu nu laal gërëmu jullit boo xam ni yoonam nekkul ci mbir yi waaw jullit yi jaay nanu nanu leen bàyyi ñu jaay seen jaay waaw ñu yor seen table ñu yor seen boutique bu kenn jël ca ñoom benn marchandise marchandise boo ko jël teg ci doole même ñoom su la mënul dara yàlla dana la ko laaj ëllëg ndax léeg-léeg nga gis ndeysaan ku amul lu dul benn taabulu màngo nga gis ñu jël màngo ya lekk waaye léegi loolu lu mu jotee crise bi ñu ni noo réew mi dëgg amu fi mën ni dëgg bu amul nanu muñ yàlla dana àtte dëgg te ku nekk rek na doxal dëgg rek waaw ku mu neex manifester manifestation ñëpp mën nañ ko waaw ñëpp mën nañ ko kenn ku nekk mën nga taxaw waaw doxal la nga war doxal kenn ku ca ne mën nga taxaw doxal la nga war doxal mën nga revendiquer lo war revendiquer waaye bu ñu lor benn jullit waaw bu nu lor benn jullit maanaam bu nu lor jullit ci alalam bu nu lor jullit ci bakkanam waxuma sax jullit rek euh, mais nit en général doomu aadama bu kenn lor benn bakkanu doomu adam parce que bakkan boo lor la yonent bi waxoon ay dellu si dana wax nga fay bakkan bob. noo koy bu kenn lor benn jullit ci alalam alalu jullit dafa sàkkare ni bakkanam sàkkare léegi nag ku ni loolu yëpp yoonam nekk ci lu ko neex lay def dana dajeeg borom bi loolu mooy li ci ne moo tax loolu lu jar di bàyyi xel lu jar di bàyyi xel waaw beneen wàll itam bi nga xam ni mooy amplifier crise bi nekk ci réew mi parce que crise boo gis am na lu koy amplifier waxoon naa leen fii ni leen branche bu am doole ci affaire yi di dugg nañ ci réew mi ñu ngi fi ba léegi waaw ñu ngi fi ba léegi di jaxase xol yi waaw di yàq réew mi di doxale nam leen neexe waaw waaye bi ma ko waxee ñu joxe ñaan ya ñu ni nañ def ñaan ya ñee def def nañu ñaan ya def nañ dem nañu ñoo ñaan kese génnewu leen waaw ñooñu taxawaay moo leen di génn waaw te nitu yàlla yëpp yëg nañu ko taxawaay moo leen di génn ak ñi xam yoon bi ñu leen di génn ma waxaat ci réew mi fii ni leen nan leen moytu may doole nanu fexe ba anéantir leen waaye bu leen kenn may doole lan nan ma ci tontoo dañu xëy jël casserole di tëgg ma ni baaxul ñu continuer di tëgg waaw parce que boobu ku ni baaxul nu ne ah yow kii nga kii nanga ma ah, sama yoon ci loolu ñu ñuy wax waxi diine waaw ñu may leen doole léegi nag ñu may leen doole ñu récupérer ñoom jeunesse bi ñoom di di di tas di def lu pour wax la ni maanaam réew mi man dama jàpp ni crise bi gën a rëy ci Sénégal actuellement li fi manqué mooy kilifa mooy crise bi gën a rëy man dama jàpp ni crise bi gën a rëy doonte crise bi bari na crise nangam nangam fii crise bi fi gën a manqué fii ci réew mi mooy kilifteef ak wax ñu xam ni la ngay wax amoo ci intérêt diine ji doo nga tax nu dégloon loolu nag bu manqué mag ñi nee na lii ñëw mooy li nu dal nii mooy pëccëxoo comme pëccëxoo am na ba noppi. nan trouver solution yi xam nga solution bi fu ne lan la waxuma ni solution pëccëxoo bi mooy ay dialogue ak ay toog fii kii di waxtaan kii di ree waxuma loolu dama ni solution peut bi mooy lan mooy jullit bu ne toogal nga xool sa digganteeg yàlla bul laal jullit boo bul yàq benn jullit boo magasin lu mu rëy rëy su ñu nee dàjj nañ ko bu fa jël benn kafe wala benn meew boo jëndul ak sa xaalis loolu na ci jullit yépp bàyyi xel ndax ëllëg a tax du tey waaw kooku ëllëg moo tax jullit yépp bar ci bàyyi xel ndax du tey su ko defee itam jullit yi lu ñu génn génn lu seen dënn tàng-tàng lu nu def def kenn ku nekk nanga bàyyi xel li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te mooy ni bakkanu jullit dafa sàkkare waaw bakkanu jullit dafa sacré bu bu benn nit maanaam tuur deretu nit waxuma sax deretu jullit mais deretu nit rek koo xam ni nga dem tuur deretam ëllëg bu la ko yàlla fayoo yowmal xiyam lan ngay wax kon nañu bàyyi xel sunu bopp àdduna jaarukaay la riir yii yépp day paase waaw riir yi day paase tey boo demee ci armeel yële danga fa fekk koo xam ne président la woon ma nga ñu denc soo demee ci armeel yee da nga fa fekk koo xam ni moo doon chef de l'opposition ma nga ñu denc te njàngat bi wan nañu ko waaw ana président Léopold Sédar Senghor fu ñu koy seete tey ndax pale lañ koy seete armeel lañ koy seete waaw ana Ousmane Tanor Dieng ñëpp déggoon nañ ko ci opposition bi ana mu tey bu ñu ko doon seeti ci bàmmeelam lañ koy seete ana ñeneen ñen daan dégg seen tur fii waxuma sax ñu jiitu ñooñu ñoom ma du Dia ñoom président ma du Dia ñoom lamin Gueye yi nga xamni ne histoire sénégal yépp seen empreinte mi ngi ci ana ñëpp ngi ci bàmmeel kenn ku nekk la nga jëful woon la nga jëful woon soo demee doo ko fekk la nga jëfoon rek nga fay fekk kon nañu bàyyi xel suñu bopp nañu bàyyi naxante te wax nit ñi dëgg wax li yàlla wax xam nga li yàlla wax moom boo ko li ci des interprétation nit sa yoon nekku ci ñu bari dugal seen bopp lu leen dugal mooy dañuy jéem a wax lu neex nit boo waxee lu neex nit tey bu subaa mu naqadi nit ka waaw mën na neex tey suba mu naqadi ko boo waxee nag yàlla la mu wax moom loolu day wéy abadan waaw man di crise bi lu muy rëy rëy benn position lay défendre waaw ku nekk sang bi kañ la ci wax nangam dama ni crise bi ci Sénégal li muy rëy rëy bu may defendre benn position lay défendre bu may far fenn lay far xam nga fan lay far mooy ci jigéen ña nga xam ni wala ci góor ña nga xam ni amuñu lu dul alal ju ñu dundalee seen njaboot ñu dem di jël seen alal dama ni bàyyi leen alal jàmbur laa wax li ci des sama yoon nekku ci. alalu jàmbur alalu jullit yi bàyyi leen ko man loolu laa wax waaw jullit yi jaay seen jaay lu nu am yóbbu seen kër li ci des waxtaanee leen ko trouver leen solution sama yoon nekk ci waaye alalu jàmbur moom bàyyi leen ko ñun xam nañu lu nekk ci dajale lu nekk ci commerce kii dundal njabootam amul lu dul lu mu dundalee njabootam nu dem dajji bitigam jël bagaasam wala dajji taabal waaw nanu moytu loolu moytu loolu li ci des nag ku mu neex régler ko nu la neex waaye alalu jàmbur bàyyi leen ko alal miskin yi bayi len ko alal faqir yi bayi len ko fofu la far assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh